nettoyeur bi li muy permettre moom mooy ñax yi ni ci ginnaaw nii nga gis donc ak poussière beeg xeer yeeg salte yeeg yëpp da koy génne propre ceeb bi deuxième étape moom mooy décortiqueur pour mu jógee ci nettoyeur bi ñëw ci décortiqueur bi aussi dafay versé ci benn élévateur élévateur boobu moo koy wàccewaat fii ci décortiqueur bi ensuite décortiqueur bi bu fekkee ni bi moom aussi su ko décortiquer indi ko ci table bi donc table bi rôle am moom mooy

je vais continuer dem bu ko weexalee ya gis différence baa ngi voilà donc bu joggé ci blanchisseur bi dal di continuer ci table séparateur bi table séparateur bi aussi mom moy da fay séparer type de riz bi ni am mhm. parce que am nañ trois types de riz moy entier intermédiaire ak brisé donc entier bi comme moom da am benn impureté dafay continuer directement ci balance intermédiaire qui génn ci côté bini nii brisé bi nga xamante ne bii moom mooy ànd ak tànnifi ceeb yeeg yooyu noonu kooku dañ koy jaarale ci machine bii machine bii bi ngi sortex sortex sortex njëriñam moom de faire séparer tànnit yi ak ceeb bu normal qui est bu set bi moom mooy saaku donc ngeen gis nii mu fegee suuf donc sortex bi su fekkee ni bi ceeb bi bi muy jaar fii melul nii bi donc comment mooy lii ceeb bi moom moo nekk nii donc bu jaaree ci Sortex bi Sortex bi moom moo koy rendre propre comme ça. fii donc mën na ni étape benn ci lay moom mooy nekk étape séparation type de ceeb type de riz donc entier bi fële lay dem ci machine bi automatiquement machine bi ñoo koy programmer à 25 kilos wala 50 kilos saaku yu nu am rek boo ko programmer boo keppee su poids bi matee rek day bàyyi automatiquement nga continuer daal di ñëw sa saak intermédiaire bi ak kii bi moom machine à coudre bi ni la utiliser puisque demul ci machine automatique donc machine machine à coudre bi la ñuy utiliser pour ñëw ko donc ni ngeen ko gisee nii donc ci sorte bi brisé bi moom mo nekk ni donc intermédiaire mo mo moom moo nekk nii moom lan beer fii donc entier yi moom son de riz son de riz bi moom moo nekk nii donc blanchisseur bi su xossé ceeb bi li ciy génn mom moy mom moy son de riz bi mom moom la ñu moom la ñu donc nek aliment bétail mom te bi tamit dafa riche en amidon mën nañ ko utiliser def ko def ko ruy diko utiliser donc dafa riche en vitamine quoi voilà beneen étape bi ci dess mom moy chambre bi ni kopp bi foofu lañ koy foofu lañ koy magasin

lii moom mooy nettoyeur donc day yëngal gerte gi dégager poussière bi génne xeer yi yëpp daal di bàyyi gerte bu set bi rek jàll. ñu ngi ñu ci machine bi fii mi ngi tudd décortiqueur moom aussi day xolli gerte bi kopp mu yóbbu ko fa la kopp gerte yi gerte bu set bi fii fii lay génne. donc ñun buñ ko récupérer fii automatiquement indi ko ci machine bi nii machine bii daf ñu permettre ñu tàngal gerte parce que gerte bala nga koy. pressé mu am diw da nga koy tàngal tuuti donc da koy indi ci presse voilà lii machine bi mi ngi tudd presse donc fii la sotte gerte bi bu fekkee da nga koy yëkkati ak suñu loxo sinon mën nañ koo sotti aussi fii conducteur bi indi ko fii directement donc machine bi donc gerte bi fii lay naloo fii lay naloo

diw bi pour indi ko ci mbaal mi nga xamante ni bi réserve boo ko mën cee def ni mu claire donc bu nu bu nu defoon kii la benn échantillon pour doon wane jógee foofu ñu ñëw ci état bu sol diw bi remplissage donc suñu machine bi dañ koy programmer cinq litres wala dix su fekkee ne bii comme bouteille bii 10 litres la machine bi bu dee 5 litres la da ngay appuyer benn yoon mu def 5 litres nga appuyer waat mu def 10 litres bu jógee foofu ñu ñëw ci étape bi di koy tëj donc bouteille bi initialement du am lii du am lii mais ñun ñun ñoo ko monté ko suñ ko monté daal di jël capsule comme nii jël capsule bi teg ko machine bi surtout dafa ñuy permettre ñu ñu mën a tëj bouteille donc bu appuyé ci pédale bi rek nga koy tëj. mu tëj ci saa si. voilà macha allah. donc lii mooy état bu diw bi. voilà ñaari machine yii ngeen gis ñoom ñooy formé ci bouteille donc premièrement. donc lii mooy ko bu 10 litres lii moom lii moom moo formé 10 litres. 5 litres moo nekk nii am na 1 litre ak quart de litre. da koy ruyal ci biir ba jël forme bi moom moo gën a ndox non pas wéyal. premièrement tube bii la ñuy jël teg ko ko donc machine bi li muy permettre mooy lan pour mu tàngal tube ah. waaw tàngal ko nag ba mu ba mu yoroon mais da koy tàngal tuuti rek benn da koy régler benn température bonté bu jàllee ne génnaat fi parce que kii bu tàkkee bu ñu jege fii day tàng jër donc comme ça ñi nekk fii ñoom ñoo koy récupérer mm-hmm. une fois mu def tour bi ñëw bu fekkee tàngoor du doy na da koy récupérer automatiquement ñëw monté ko ci mël bi nii su ko monté ci mël bi bës bouton bi affaire bi tëjee bu tëjee automatiquement bu bësaatee bouton bii nii premièrement air bu tàng bu mooy njëkk a pression bu bari doon pour gonfler affaire bu ko gonfler mu daal di jël forme mël bi ensuite bu foofu état boobu noonu jeexee air bu sedd ñëw pour mu mën a. forme mu mën a téye forme air bu sedd bi automatiquement daal di moom mooy kiyal boppam tijjeekul boppam nga récupérer sa bouteille